su defee benn joor noonu wax nañ ne joor boobu war nga say tibb nga dank ko su ndox mi toqee wax nañ ne boobu bon mixi na waaye su fekkee ndox mi toqut wax nañ ne mixeegut su ko defee bu fekkee mixeegut nga dellu tànq si ndox mi sotti ko si dellu ko labourer ba mu ànd bi nga xam ne boo ko tibbee boo ko dankee ndox ma dana toq wax nañ ne boobu moom moo gën léegi nag su ko defee boobu moom yaa ngi koy war a dajale soo ko dajale ba mu dajoo mu ne na ko sàng ba baax soo ko sàngee ba baax nga wut sowetaas def ko si ba mu mu ne nga ut benn bant bant boole boo ko amee war nga koy sampal si biit si biit labourie boobu nga dajale soo ko eh, defalee bant boobu diir bu yàgg nga sempi bant boole nga làmb taatu bant ba soo lambee taatu bant ba su fekkee mi ngi tàng baal xel ne ñoragut labourer bi ñoragut waaye soo ko fa delloo soo muñee beneen diir maanaam maanaam beneen wiig da gis ne boo ko sempee boo la ngëbee taatu bant ba dana fekk mi ngi sedd waxtu bu taatu bant bi seddee nag baal xel ne léegi mun nga koy jëriñoo léegi baaxaayam boobu moom laa leen bëgg a xamal ndax baaxaayam boobu ñun jig nañu te suñ njëriñ la te suñ ko defee baax na si ñun ndax mbalit mi nga xam ne mi ngi sa kër sën bi nga xam ne mi ngi sa kër yooyu yëpp nekk na tos yoo xam ne njëriñ la te loolu yëpp buñ ko xamoon it duñ ko daan def waaye tey wan nañu ne loolu njëriñ la ndax loolu moom jarul wàcc loolu jar na toppatoo ndax bale sa kër ba pare sànni mu setal sa kër te fa ko sànni boo ko fa jëlee mu nekk sa njëriñ loola moom lu mot a toppatoo la te loolu yëpp gis nañu ko wan nañu yooyu yëpp te xam nañ ne loolu yëpp njëriñ la te toos googu ngay gis tos gi baax na lool toos gi baax na lool ndax soo ko seetloo ñun ñi nga xam ne ñi ngay bay dugub dugub bi tos bokkut ak dugub joo xam ne di nekkut dugub bi tos dugub bi tos bokkut ak dugub joo xam ne di dugub bi engrais la ndare engrais baadoolo yi nga xam ne engrais nit ku ñuul la boobu rek la euh, dugub jole xemat boobu nekk na dugub joo xam ne pepp bi dafay rëy bu dee suna pepp bi fay rëy bu de mboq pepp bi fay rëy te du am benn ëyib du am benn problème loolu waxtu boo ko lekkee mun nay yokk sa wér wér gu yaram ndax amatu dugub ba amut benn feebar dugub bi tos amut benn feebar tos nag du nag rekk moo ko mën naga xarak bëyëg sënëg yëpp mën nañ tos ndax li yëpp wan nañu ko te lii yëpp soo gisee ñu ñoo koy wan ñu ne saakoob engrais bi seer na seer goo xam ne gis bëri na ñoo xam ne ñu ñu ngi ko bëggoon waaye mënatuñ koy jënd bañuñu ko waaye mënatuñ koy jënd bon nag bu ñu yàlla indilee xewal gile le ñuy koy liggéeyal suñ bopp waaye waaye nañ ci góor góorgóorlu ñun itam suñ ko defee mu nekk suñ njëriñ te lii kat jar naay jàng jar naay jàngale ndax lii njëriñ la loo xam ne lii daj na ñëpp te mun naay daj ñëpp te lii def ko baax na te def ko mi ngi wér-gu-yaram kon man santaane naa lii man fas naa yéene def ko te képp koo xam ne kii yaa ngi ma déggal danga def lii kon li nga xam ne man moo ma desee si li ma war a wax si fii si jotaay bi moo de ñi nga xam ne ñoo yore projet bi maa ngi leen ay sant da leen gërëm da leen gërëm mbootaay gi nga xam ne ñoo leen yëkkati ñu ñëw fii ñoom ñëpp maa ngi leen ay sant da leen gërëm. asalaamaaleykum man Aji Kane Touré Bati Diakha maa leen di nuyu maa ngi dëkk nekk ñaani ja ci projet bii léegi ñu ñu ñu tànn pour ñu ñëw fii bu budub defar engrais bi tos pour ñu mun koo def jëriñoo si suñ mbayteef ndimbal luñ def si ñaani ja fii ndax si Gambia su ma yeboon parce que ñetti tund ñoo ko bokk waaye ñun de depuis projet bi dugg fii ba tey alhamdulilah rabbil alamin sant na yàlla bu baax bu baax a baax a baax ndaxte comme ça tey njàng bu ñu jàngal fii xam-xam boo xam ne la si ñun du du dañ ba faru te liñ bëgg a ñu ñu ñu def mooy ne njàng bi ni ñu ko jàngalee suñ demee ñi jëriñoo loolu parce que bëgguñ ñee ñu jàngal ñu jël di ñuy jàngal ñu teg ko fii li njëriñ li ak li am fulla ak fayda li ñuy jàngal suñ demee nañ ko jëfoo maa ngi ñaan ci mbokk yi ñu fii yëpp mbooleem ko xam ne ñëw nga si training bii soo demee li ñu la jàngal fasal yéene nga def ko mu jëriñu parce que soo seetee ñun nuñ sonné woon ci mbiri engrais luñ daan dépasse loolu yow wàññeeku na te loolu mu ngi mel ni suñ am-am bi mu ngi yokk te loolu yëpp soo seetee ne projet bii moo ko indi parce que su duuroon ñoom mën naa am tànk yi du ñëw ba fii kon lu ñu war a def rek dinañ leen gërëm sant leen. asalaamaaleykum mbooloo mu ñëw déglu rawatina suñ mbokki béykat yi man maa ngi tudd Matar Ndiaye. maa ngi liggéey si bunti eh, jur gi ñu di ko wax veterinary department sa abu ko soo tey ñu ngi si suufi ñaamina eh, di jàngal waxtaane béykat di leen jàngal naka lañu defaree tosi ni ku ñuul ki ñu di ko wax maño production njànge mi ñu ngi ko dooroon talaata bële commencé si suufi kiyang kene ba am nañ fa ñetti fan bañ jiyoo ko foofu ñu ñëw si suufi caamen ñaani ja am nañ fa ñetti fan léegi ma maa wax ak yéen nii ñu ngi si suuf si ñaamina ñaamina si dëkk yi Mamoud Fana si njàngay mi ñu ngi doon jàngal béykat yi naka la ñoo defaree tos si ni ñuul ki ak ban njëriñ la am daanaka yaa naa wax suuf bu nekk taa nañ fa juróom-ñaar fukka ak juróom-ñetta euh, béykat muy góor a jigéen pour jàngal leen naka la ñoo defaree tos si nit ku ñuul ki li waraloon lii mooy gis nañ ne tos si nit ku ñuul ki dafa am njëriñ bu baa te dafa yomba réewatuñ mbir ne ñu bari dañ dee wax ne engrais bi tubaab bi dafa seer te soo ko bëggee am tam dafa doo ko mën a gis soo ñu ne woon ñu boole ñaar yëpp di ko jàngal béykat yi ku amul bële mun nga am am bi ñu ko dépasse mooy projet bi Gambia mooy ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si bunte bi nga xam ne ñoo amee nagi réew mi ñoom ñoo dépasse ñanga mi moo tax fi mu nekk nii ñu ngi leen a jàngal. am na juróom benn bunta yoo xam ne mun nga ko defal tasu ni ku ñuul ki léegi nag dafa def na si béykat bi mu tànn ban gën a yomba si moom ñëpp dañ yomba waaye moom mooy seen na ban gën a yomba si moom ban gën a am matériel yi nga soxla ni bii moom li nga soxla bariwul da nga soxla suuf fi suuf suuf su ñuul si nga soxla soxla nga ñax ñax boo am rek moom baax na waaye lu ñu si gën yomba mooy ñax mu tooy mi ba pare nga boole si day jur gi waaye nag bu ganaar bi nag moo gis gën a baax boo nak amee baax rek jël day fas mbaa xar boo si am rek nga jël ko yii nag moom ngaa jaxase dafa tos bii tos bi nag ah, dina dem ba ñetti wik ñetti bés yu ay baax na em commencé nga nga jële ko di ko jëriñoo bu la neexee nag ñetti bés yu ay nga defaraat beneen ba yaa xam daal li nga mun defal defar sa doole anta rek nga mun nga koo tos bi ñetti ñu angale ñu ko quick compost ñetti bés yooyu rek laa am